إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu borom jalla wa ala ñaan ko mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nañu xam ni suñu borom yàlla day nee na farataal naa ci yéen koor ni ma ko farataale ci ñu leen jiitu woon ngir yi ngeen am ak ragal yàlla looloo tax ba mbokk jullit sunu xutba tey bii mooy naka lañuy def ba am ragal yàlla ci biir wéeru koor mbokk wéeru koor googe dafa am benn làmp buy leer bu ca sunu borom yàlla wàcce nuuran mubiina muy alquranul karim làmp boobee moom moo nii niital yoon wa ñuy jaar ba am ragal yàlla jalla wa ala looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa tam taamu woon weeru koor wàcce ci la nga xam ne mooy ab téeréem chahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan weeru koor ngi nii wàcc naa ci alquran ngiree lan ngiree doomu aadama yi man caa jaar ba jub hudan linnaas mu nekk lay yu leer yoo xam ne day teqale yoonu nëngate ak yoonu ngërëm ba gërëm yàlla ba yàlla subhanahu wa taala gërëm mbokk weeru koor ngi nii alxuraan ngi nii ngalawaay la ñu delluwaat ci téereb yàlla bi jalla waala te xamal ne yow jullit sa dund gi bokk na la ca gën a barkeel waxtu wa nga toog tiim téereb yàlla bi wala toog di déglu téereb yàlla bi ngalawaay nañu ko jéem a jàng settantal ko jéem cee ñaax njaboot gi mag ak ndaw góor ak jigéen kër yi ñu dundal ko kër yi nekk kërug njàngunu alquran ña fa nekk ñépp feeñal ne ñi ngi jàng alquran daje yi ñuy daje nañ ko taaralale ku nekk yor sa téere di jàng alquran xamal ne mbokk benn wéere ngi nii teru na ci léegi mu jeex ñetti parti la woon benn ba dem na ñaar yaa ngi nii léegi mu jeex te liñ ci mën a profité duñ ko mën a am feneen bu passé looloo tax nañ góorgóorlu waat delluwaat ci téere borom bi jàll waala mbokk alxuraan yi ngi nii suñu borom taamu woon weeru koor wàcce ko ci léppam alxuraan benn yoon la wàcc ci asamaanu benneel gannaaw ba nag bépp événement bu mingoog aaya ba taxoon yàlla wàcce ko su amee yàlla yónni jibril mu jël aaya ya ñëw wàcce ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba loolu diire ñaar fukkaat ak ñett mbokk looloo tax ba suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam heure bu kooru masaan teru day dem jagleel boppam alquran di jàng alquran njàngin moo xam ne nii guddi ga yépp la ci ëppoon da ko daan jagleel taxaw jàng alquran yàlla wàcc ci moom jibril alayhi salaam jibril ñëw di nafar ak moom la jote wàcc ci alquran ibnu abbas radiallahu anhu nee na ki gënoon a tabe ci jaami yàlla yi mboola seen mooy yenenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana gën a feeñal tabe ga nag la nga xam ne mooy weeru koor heure bu jibril masal ñëw dajeeg moom ca jibril guddi gu nekk la daan dajeeg moom heure bu dajeeg moom bañ ànd naa fi la guddi gi bu ñu xëyee suba yonent bi alayhi salaatu wasalaam lum mën a joxe da koy joxe comme nañ ko waxe woon ci suñ xutba bi passé waaye mbokk yonent ba bu yaroon sahaaba ya da ngay gis ki nga xamee ni nii mooy usman ibnul affan radiallahu anhu daana sëlmal fajara te téereb yàlla bi di ko jàng di ko jàng bañu na du tisbaar njaboot gi yërëm ko bu ko defee mu daal di jooy ne wallahi xol yi rek ñoom ñoo feebar bu xol yi feebarul woon amul kenn kuy téye téere bu yàlla bi di ko bàyyi mi ngi noonu tey jii di ngay gis xale bi dem cinéma ñu koy dawalal ay long métrage léeg-léeg bu njëkk deux films lañ daan tege man naa faa dugg deux heures ba génn jant bi sono day mel ne trente minutes la def ci biir cinéma bi ndax la nga xamee ni noonu la ko film yi itteeloon naka noonu yéen mbokk jullit wallahi yooyu mi xam alquran xam aayaat yi xam ci kan la jógee xam lan mooy njëriñam àdduna ak alaxira boo téye téere bi yàlla bi doo ko bëgg a bàyyi kii nga xam ne ni mooy Abdullah ibn Mas'ud bokkoon ci ñi dàq jàngal quran gën ko caa xam yonent bi santoon ko mu koy jàngal alquran daañu def weeru koor bu ñëwee ñetti fan du romb ca wàccewul téere bi kii di imam Bukhari nga xam ne mooy imaamu képp kuy solo hadis teewul loolee mu itte woon ci solo hadis bu weeru koor masal ñëw danaan ko fa ñukk bés bu nekk dana wàcc benn kaamil mi ngi noonu rahimahullah imaamu Malik imaamu Darul Hijra moom it lañ ko xamee woon mooy jàngale hadis lañ ko xamee woon mooy jàngale fiq ba tey Afrique de l'Ouest yépp ñu ngi tënk ko ci mazhabam teewul bu weeru koor ma san ñëw danaan fa ñukk hadis ya ak fiq ya jublu ci téere bi yàlla bi di ko jàng ay yéen mbokk jullit bàyyi leen xel loolu weeru alxuraan yi ngi di weeru jàng alxuraan waaye nag weeru alxuraan yi ngi di weeru jàng pratique alxuraan jàng jëfe alxuraan ewaay xam leen ne alxuraan jàngul woon pour ñu koy wàcc pour ñu koy jàng alxuraan wàccul woon pour ñu koy jàng jàng ga dafay jëriñ pour ñu koy jëfe alxuraan la toxoon mu wàcc mooy ngir ñu jëfe ko suñu borom yàlla loolu la wax ne inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam alquran dafay jàng ngiree teeti nit ñi ca la gën a jub waaye bokk na ko alquran di rëbb koo xamee ni nii yaa ngi jàng aayay alquran ba pare soo jógee alquran ne ndeyjoor la ñu war a jaar yow nga jaar càmmooñ xamal ne yaa ngi ànd ak rëbbum yàlla kon alquran dañ koo war a jàng dañ koo war a xam bokk julit bokk na ci loolee mooy ñu dem ca dajey alquran ya jéem a dégg téere borom bi jàll waala ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala nangul ñu nangul képp ku koy def yàlla dogal na ci jàkk jii dey ci weeru koor soo fi ñëwee takkusaan ñi ngi fi jéem a leeral téere bi yàlla bi ba six heures passé fa lillahi alhamdu xatta yi jigéen ñu da ngay gis ne ñi ngi fi daje altina ju nekk ak alxames ju nekk di jàngalante alxuraan ci seen biir ngal la waay loolee yow góor góor loolu bu doon nekkoo ci woon ci at ma yépp it fexeel ba waaye weeru koor bokk nga jagleel ko weeru alquran jéem a xam téereb yàlla bi comprendre ko dund alquranul karim mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne kii nga xam ne mooy nafia di ah taalibe abdullah ibnu omar nafi boobu moo jàngal imaamu malik bokk na ci ay sëriñam yi gën a màgg nee na kii nga xam ne mooy abdullah ibnu omar ibnu alxataab heure bu masaan jàngal quran ba yegsi ci aay bi suñu borom naan alam yaani lillazina amanu an taxshaa qulubuhum li zikri llahi wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalazina utu lkitaba min qablu fa taala alayhim alamadu fa qasat qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun suñu borom mu ne waaw xanaa yegsiwul ci julit ñi seeni xol di toroxlu ca la nga xam ne mooy alquran ba ñuy jàng ñu bañ a mel ne ahlul kitaab yi fi jiitu woon bañ demee ba yàgg ak seen téere dañ koo soofantal wan ko gannaaw abdullah ibnu omar nee na da daan jooy ba tooyal la nga xam ne mooy ay yéreem ngiree rek daa dina ah yàlla ay yàlla tuub nañu yàlla dellu nañu nga la waay yow mi dégg aaye bi tuubal nga dellu ci sa borom jalla waala mbokk weeru koor a ngi nii alxuraan ngi nii alxuraan mi ngi lay woo naan yaa ayuha allazina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha et yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm tuub leen jëm ci yàlla tuub boo xam ne bu sell bu sincère la weeru koor ngi nii di weeru visité wu soo demoon tey jii ci ñi yàlla dénk tuuti àdduna ñu bari ci ñoom jàpp ne seen alal dana leen dundaloo ba ila ba fu leen neex chaque année dañuy dem def bilan général ci seen yaram am na ñoo xam ne xeeb nañ sax Sénégal Amérique la ñuy dem wala France bilan général ci seen yaram waaye ngal la waay yow weeru koor def ko bilan général ci sa comportement xoolal ndigali yàlla yi yan nga ko yan nga ca sàggane woon nga takk sa ndigg ngiree matal ko ci weeru koor xoolal tere yàlla yi yan la la ci yàlla nattoo nga takk sa ndigg ngir bàyyi ko ci weeru koor bokk na ci léeg-léeg mbokk jullit suñu borom mu ne taxawal leen julli cay joxe azaka yow musa bokk ci ñuy joxe azaka nga la waay weeru koor ngi def ko weeru départ suñu borom yàlla nee na nañ taxawal julli yi di daje ca jàkka ya jàkka yam dig la ñu ta ñu tabax ko ngalla waay yow daawoo def sa programme dem julli ji jàkka ngalla waay weeru koor bi ñu nekk ci yow départ bis nekki tey day ngant moo may teerate julli jàkka loolee mbokk ci la la alxuraan di woo ci weer wi nga xam ne ci la ko yàlla wàcce woon ay yow mi nekk ci weeru koor sa borom yàlla mi ngi lay wax ay yéen jullit ñi fexe leen ba bu kenn xas moroomam bu kenn reetaan moroomam bu kenn jëw moroomam nga ne ah loolu day kon danaa ci am départ bu bees ci weeru koor bis na ki tey laay gën a góorgóorlu téye sama làmmiñ wii ci jëw jëw googu nga xam ne suñu borom nee na moo gën a bon nga am mbokk mu dee avant ñu koy suul nga indi sa paaka di dagg di lekk nee na li muy bon bon nga jëw ko loolu moo ko gën a bon reetaan mbokk julit doy na ci musibay bàkkaar reetaan julit loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk alxuraan ni ngi nii di la woo ci biir weeru koor qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu furujahum zalika aska lahum waxal julit ñi nañuy téye seeni bët te nañuy wattu seen pay weeru alxuraan yi ngi nii yow mi nga xam ne sa yoon nekkul woon ci jigéen ñi sol nekk awray neen ci mbedd yi ci téere yi nu la neex nga leen doon xoole weeru alxuraan yi ngi nii ngay weeru téye say bët yow mi nga xam ne soo nekkee ci télévision ba jigéen ba muur ak ba muureeku nga yemmale sa yoon nekku ci nu la neex ngay seetaane weeru koor a ngi nii nga réviser waat xoolaat sa bopp rawatina yow mi yàlla nattoo tey li ñuy tudde portable ak lan moo lay wax luy portable ak la ma ca la ca mën a génn ci ay musiba la ca mën a génn ci ay awra weeru koor a ngi nii nga góorgóorlu ba fexe téye say bët ci loolu waaye wattul ma sa pay wattul sa pay ci njaalu wattul sa pay yow jeunes yi di génne seeni maniyu wattul sa pay ci ngóor jigéen wattul sa sa pay ci loo xam ne maam yi xamuñu ko woon muy lesbienne ngalla waay góorgóorlu leen ba tawit sàmm la nga xam ne mooy seeni awra rawatina yéen jigéen ñi loolee boo ko deful woon mosoo nekk di mën a muuru e waay weeru koor a ngi nii di weeru jënd sa kol jël départu ne dootuma génn sama kër muurooti ba baa ñu may muur ca morgo ba dootuma nangoo teqalikoo ak la nga xam mooy sama ko sama sama kol ay yéen ba ko julit suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na allazina hum fi salatihim xaashi'uun wallazina hum ani laxwi muridun julit mooy ñi nga xam ne dañuy toroxlu seen biir julli waaye ay caaxaan ñu woon ko gannaaw weeru koor a ngi nii di weeru bàyyi musique bu bon bu xaram bi weeru koor a ngi nii di bàyyi lépp loo xame ne nii ay film la yuy génn ca télévision ya film yuy génn ca portable ya théâtre caaxaankat ya weeru koor a ngi nii yow ndawal julit di weeru occasion nga bàyyi ko lépp bàyyi goo xam ne nii fas yéene woo dellu ci weeru koor a ngi nii mbokk julit lépp loo xam ne ay caaxaan la ak wax yu amul solo ay may yu ñàkk fayda ak yu demee noonu weeru koor a ngi nii nga wan ko gannaaw waaye weeru koor a ngi nii tamit nga soril ma mboole mi place yoo xam ne ay bidaa fa nekk ak shirk ak yëkkati ay doomi aadama di leen teg ci kaw borom bi dummóoyul jataay ya dummóolu déglu ko loolu moom la sa warom yàlla santaane la ay yow mi dund alquran bëgg koo dund weeru koor a ngi nii di occasion suñu borom yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil e waay bu leen lekkante seen alal ci neen weeru koor a ngi yow mi nekkoon ci riba bis na ki tey nga sori riba ay yow mi yàlla nattoo woon ak càcc da doon gu feeñ laam ga ngay càcc ca biir compte yañ la dénk ak la nga xamee ne ni moom mooy li nga xam ne sa comptabilité moytul sàcc googee lépp loo xam ne wor la ci wàllu njaay ci wàllu jënd weeru koor a ngi nii nga teqali ko ak moom yow mi nga xam ne yaay réparateur bi weeru koor a ngi nii ca nga bañ a nax bañ a wor ña nga xam ne da ngeen di réparer loolee oto la am loolee ay ay machine la am lu mu mën a doon weeru koor a ngi nii yow ouvrier bi le maçon menuisier kum mën a doon nga moytu di nax ñi ngay liggéeyal di leen wax lu amul di jalgati la nga xamee ne nii mooy seen matériel weeru koor ngi nii ci lépp loo xam ne ni aqi doomu aadama la ñu jëm ko ko delloo képp koo yoraloon bor ca bor boobee fayoo ko ko nga xam ne bokk na ci li gën a grave lépp doomu aadama bi mu wóolu la ba pare nga naax saa yal bor ba ba faw mbokk weeru koor ngi nii di weeru woo xam ne mi ngi ñuy woo ci jukko ya nga xam ne mooy gën a kawe suñu borom yàlla subhanahu wa taala woo ñu ne ci yéen julit ñi xam leen ne benn ngeen innamal muminuuna ixwa weeru koor a ngi ni ñu dundalaat loole ku nekk boo gisee sa moroom jàpp ko ki nga bokkal ndey ak bàyyi loo mën ci njëriñ nga defal ko ko loo mën ci laay biir nga defal ko ko loo mën ci teggiloor nga nga moytul ko ko loolee mbokk weeru koor ngi nii di weer woo xam ne boo ci nekkul woon ngalawaay nekk ca ñu ngi leen di woo ñu delluwaat ci ci alquran jàngaat alquran settantalaat alquran jéem koo xam suñu paree nag ñu jéem a góorgóorlu bépp woote bu ñu ci yàlla woote ñu daal di koy taxawee mbokk alquran suñu borom nee na wa laqad yassarna alquran li zikr suñu borom yàlla moo ko yombal yombal na jàng gi lool wallahi bépp jullit bu farlu doo def un mois lu dul nga bokk ci ñi ñiy jàngal quran gannaaw ba it yàlla yombal na dégg gi fa lillahi alhamdu ñi ngi koy leeral ci place yu bëri suñu borom yàlla yombal na jëfe gi ndax alquran defu ci lenn loo xam ne xaraj la amul lu ñu yàlla digal loo xam ne dañ naan a lii kat nit mënu ko mboolem mbiri diine suñu borom yàlla subhanahu wa taala da ko yombal loolu nag moo tax ba nañu xoolaat suñu suñu suñu temps et waaye mbokk jullit nañu bàyyi wax xel ne ñun dey nit ñi nit ñi fonke suñu portable yi nga xam ne ca la ñuy nekk ba julli jot bu ñu sëlmalee moom la ñuy jëkk a xalaat fu ñu dem fàtte ko dañuy mel ne ko dof ngal la waay xam leen ne sahabatul kiram ak taabiin ak taabiin noonu lañ meloon ci téere bi yàlla bi téere bi yàlla bi moo nekkoon seen àndandoo moo nekkoon seen arme moo nekkoon seen xarit ca la ñu doon ñaane yàlla ca la ñu doon fajoo ca la ñu doon wéttalikoo ngal la way loolee bu dee nekkoo ca woon góor-góorlul ci weer wi nga xam ne mooy weer wu barkeet boo ci dogoo rek suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana la ci jàppale xamal ne suñu borom yàlla mi ngi nettali loo xam ne yonent bi alayhi salaam nee na moo ko wax ca mooy wa qaala rasul ya rabbi inna qawmi ittaxasu hadha alqurana mahjura ay yàlla sama xeet bi day wan nañ gannaaw alquran ca mooy ci njëlbeenu wooteem amma nag mbokk jullit bañ demee ba mu yàgg it tey li ëpp ci doomu aadama yi won nañ gannaaw téem téerab yàlla bi di ko jàng ña ko cay jàng li ëpp ci ñoom won nañ gannaaw di ko settantal ba xam li muy firi ña xam li muy firi it ña ëpp ci ñoom won nañ gannaaw di ko jëfe ak di ca woote loolee mbokk xam leen ni téerab yàlla baa ngi nii suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaam nee na ahlul quran hum ahlullahi wa qaasatu ñi nga xam ne ñooy ñooñu alquran fii tewug alquran ñooy njabootug yàlla ci kaw suuf ñoom rek la yàlla jaglool imam ahmad solo na noonu albani ne xadis bu wér la gannaaw loolu mbokk julit téere bi yàlla bii di alquranul karim bi ñuy waxe ak chehru ramadan bii ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bi bu la yàlla dekkale yowmal qiyaama sa dossier ñu teg ko ñu lay atte imma nga jóge fa dem ajjana wala jóge fa dem sawara suñu borom day jëmmal alquran mu ñëw taxaw mu jëmmal shahru ramadan mu ñëw taxaw ci jamono boo xam ne doo gis baay doo gis sëriñ doo gis wali doo gis kenn amul xarit amul doom bu ko defee alquran muy jóg taxaw ey yàlla baal sa jaam bi man maa ko xañoon ay nelawam ci guddi man la doon jàng di ma taxawe weeru koor ne ay yàlla baal sa jaam bi maa ko xañoon ay bànneexam ca bëccëg su ko defee suñu borom ne nangu naa seen ñaan daa di lay jéggal daa di lay tabbal aljanna yal na yàlla boole ñu ci ñooñu alquran yal nañu yàlla bëggloo alquran yal nañu alquran daqal la gën a neex ci ndox mu sedd ci jamonoy mar yal na yàlla def ko muy taaral suñu dund nekk leer gu ñuy teete ila siraat mustaqim yal na alquran ànd ak ñun suñu dund ak suñu bàmmeel yal na alquran yéegi suñuy daraja ci àjjana yi gën yaa kawe yal na yàlla subhanahu wa taala fajal ñu suñu mboole mi jàngoro ci alquranul karim fajal ñu suñu mboole mi aaju ci alquranul karim allahuma rabbana atina fi dunia xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغممنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا القرآن اللهم حبب إلينا القرآن وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين